وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل الحبيب عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة المادية والباقية بقيتي الله تبارك وتعالى xam ngeen ni ñu ngi ci jamonoy aj aj tey la commencé tey mooy yow mu saami bisu juróom-ñetteel ci la aj di commencé biig ci guddi ci la ujaaj yi déparé ci seeni dal kenn ku nekk nga dem point bi nga xam ne fa ngay déparé aj sangu watu armal jëm fanaani minan tey ci kàttanu borom bi waxtu wi ñuy wax ak yéen ujaaj yi ña nga minan fa lañ war a fanaan départ jëm arafa suba mu nekk bëccëg boo xam ne ku ajiwul daf ko war a woor ci hadis boo xam ne sahaaba bu màgg bu tudd abi qatada ñenn ñi ne turam alxaaris la moo gën a siiw ñenn ñi ne nu'man la tudd ñenn ñi ne amr la tudd ñu wuute ci moom ne fekke woon na badr wala fekkewul badr alxakim abu ahmad mu ne kaana badariyan wala yasix wattafaqu ala annahu shahida uhudan wa ma baadaha sëriñ buñ naan xaakim nee na abu qatada fekkewul woon badr xeexu badr nee na uhud la fekke ak la nekk ca ginnaaw uhud moom sahaaba bu màgg bi bokk na ci turam yuñ ko doon xàmmee sax di ko ko wax mooy faarisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama sabata fi sahihi lmuslim moom abi qatada moo doon garde yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba yonent bi benn bis daal di koy ñaanal su yonent bi daan tukki lu ëpp abi qataada la daan àndal moo ko daan wattu ba yonent bi ñaanal ko ñaan bu siiw ci téere yi ne ko xafizaka allahu bima xafizta bihi nabiyahu ni nga aare yonent bi yàlla bi yal na la yàlla aare noonu moom abi qataada mi ngi gaañu ci atam juróom fukk ak ñeent ba muy faatu mi ngi am juróom ñaar fukki at moom moo ñu nettali hadis bi mu ne dañoo laaj yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ci lan moo nekk ci njëriñu woor bisu arafa yonent bi bi muy tontu dafa ne yukaffiru assanata almaadiya walbaaqiya ki woor arafa yàlla da koy jéggal bàkkaar yi paase ak yii di ñëw te benn fan la benn bëccëg tey mooy yow mu saamin si juróom-ñetteel suba mooy yow mu arafa bëccëgu suba bi samedi mooy yow mu arafa waaye buñ ne yow mu arafa xel yi danañ dem ca bés ba ca tegu parce que mooy tabaski waaye li yéeme ci sunu réew mii mooy naka la ñuy taxawee arafa samedi lundi nekk julli yonent bi taxaw arafa xëy ba set tabaski ñun ñu taxaw arafa woor dañ ne lundi dañuy noppalu dimanche parce que dañoo sonnoon bi ñu wooree ah loolu lañ bëgg a wax am na yoo xam ne xel sax nanguwu ko dama ne dañuy jaamu yàlla ngir yàlla la ñuy jaamu wala ay tarixa la ñuy jaamu wala ay nit la ñuy jaamu wala sunu jaamu lan lañ ci jublu kan la ñuy jaamu ku nekk li ngay def koo ci toog koy xool ndax du ndigal li fenn la war a jóge ci asamaan ak ci yonent yàlla muhammad wala ndigal li fan lay jóge ci kenn ku nekk ci ñun naka la ñuy taxawee suba arafat samedi di julli lundi loolu ban sunna la kan moo ko jàngale Muhammad Aboubacar mus ko def ginnaaw yonent bi Ousmane mus ko def Ali mus ko def Omar mus ko def fu ñu jëlee lii di digal diggante arafaat ak tabaski ñu ciy dugal fan fan lañ jëlee loolu kan moo ñu ko yoonalal ban sunna la su fekkante ne comme démb la information lañ dul woon am rek tey yëpp dafa leer fan la fan yëpp ku gis wal fajiri dañuy def arafaat samedi en direct ka annaka waaqifun fi arafa loolu sax lañ ci bind en direct léegi dara dara lépp leer na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam biñ ko laajee woor arafa mu ne dañ lay jéggal sa bàkkaar yi passé ak yi di ñëw léegi nag bu fekkee arafaat bi su samedi la yow nga woor dimanche ñu ne la lu tax nga woor dimanche nga ni tey mooy arafa xanaa yow sa arafa la lan mooy arafa arafaat am na ñu koy wax arafa am ñu ne arafat palaasu tur la ci benn barab ismun li mawdiin maaruf tur la turu barab bu ñu xam nekkul fépp fu nekk benn barab la bu ñu xam ràññee ko xam place bi mu nekk limaza sumiya arafa lu tax ñu tuddee ko arafat ñetti wax ñëw na ci wala lu ko ëpp ñenn ñi nee nañ inna jibril alayhi salaatu wa salaam arrafa ibrahim alayhi salaam almanasik falamma waqafahu bi arafa qaala lahu arafta qaala naam fasumiya arafa fasumiyat arafa ñu ne jibril moo ñëwoon di jàngal ibrahim nan la ñuy ajee bu leen yaakaar ne ñun ñoo njëkk a aj kaaba gi ibrahima moo ko tabax wala bokk na ci ñi ko yëkkatiwaat moom la yàlla waxoon wooteel nit ñi ñu ñëw aj yàlla wax jibril na jàngal ibrahim nu ñuy aje ibrahima jibril jàpp ci loxoom di ko won nu ñuy aja ba egg ak moom arafaat ne ko hal arafta mu ne naam fa sumiyat arafaat est-ce que comprendre nga liñ la jàngal yépp mu ne waaw ñu tudde ko noonu loolu mooy arafaat ñenn ñi loolu lañ wax ñeneen ñi ne sumiyat bi zalika li anna adam alayhi salam wa hawa alayhim assalam taarafa biha baada nuzulihima min aljanna allah subhanahu wa taala bi mu dàqee aadama biir aljanna ak soxnaam xawa bañ ko tooñee ba leen iblis tarxiis loo fa azallahuma shaytaanu anha ba leen seytaane naxee ñu tarxiis ba yàlla génne leen wàcce leen dañoo réeroo ñoom ñaar aadama wàcc ind xawa wàcc jidda ñoom ñaar ñuy wërante di dox ba daje ci barab bii loolu boroom xam-xam yi nee nañ moo tax ñu tuddee ko arafat muy ñaareel wax ñetteel ñu ne inna annaas yaatarifuuna bi zunubihim min zalika al mawqif ñu ne nit ñi lañ fay taxaw kenn ku nekk bi nga taxawee arafat ngay reconnaître sa bakkaar ne loolaa tooñ sa borom ñu ne loolu moo tax ñu tudde ko arafat al muhim barab la dafa am fu mu nekk bu ñu xam mu nekk ci makka su aj commencé bisu juróom-ñetteel bisu juróom-ñeenteel mooy nekk arafat bisu fukkeel nekk tabaski loolu foofu mooy arafat bu fekkee at bii ñu nekk samedi lay doon suba est ce que xel dina nangu jullit bu bëgg yàlla ak yonent di ko war dimanche te samedi la ñu ne ko yow lu tax nga war dimanche mu ne tey mooy sama arafaat sama ah yow da ngaa génn ci mbooloo jullit yi jullit yi dañoo am arafa yow nga am arafa comme rek ñun jullit ñi dañoo am tabaski ñun ñoo am tabaski da ngay déglu ne tabaski waa Sénégal lëndi la da ngeen a génne seen bopp ci jullit yi ñun insha allah dimanche la ñuy tabaski ci jàkk yi duñu génn mukki jullit yi ibrahim jàngeen yàlla fa tabaraka wa taala lu mu wax jullit du génn boppam ci jullit wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa qaala innani min almuslimin wa qaala innani min almuslimin jullit du génn boppam ci jullit yi lan mooy ndeyu tey ñun jullit yi ñun jullit Sénégal ñuy génn ci jullit yi suñu wooree tey ñun ñu wóor suba bu ñu wooree tey ñu wari suba bu ñu tabaskee tey ñu tabaski suba lépp lu àddina bi def jullit di def ñun ñu ne suba tey mooy bisu àjjuma heure bii ñu nekk waa Màkka julli nañ àjjuma tey wala julliwul tontu bi mooy julli nañ lu tax ñun xaaruñu ba suba ñu julli àjjuma parce que xam nañ kon duñu àjj àjjuma duñu am àjjuma kon xel nangu na suba nekk Arafat ñu ne ñun dimanche la ñuy wax lii rek leer na bis tey bii rek leeral na tey mooy vendredi balaa ngeen a ñëw yéen ñëpp ñi am antenne parabole seetaan nañ julli vendredi bi tey mi na en direct lu tax lu tax tey ngeen ñëw julli ji wala xaar nañu suba lu tax ñu xaar na suba ñu julli vendredi kon xel nangu na yonent yàlla muhammad ne sawmu arafa yukaffiru zunub assanati almaadiya wa baqiya soo wooree bisu arafa yow mi ajibul bayana alhadis liman saala an sawmi yowmi arafa wa huwa yowmu tasi min sahri zilhijja أن من صامه فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذنوب السنتين كاملتين حديث بلال نني تي لاج يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نكو وور بيسو جوروم ñentel ci wéru aj ku ko woor lan mooy say tiyaaba mu ne yàlla jéggal la say bàkkaaru ñaari at bi nga paase ak bi nga dëgmal bi nga paase ak bi nga dëgmal loolu kan la mu ne innama huwa liman yatayassara lahu lhajj lam yatayassar lahu lhajj innama huwa liman lam yatayassar lahu lhajj walwuqufu bi arafa mu ne loolu kan lañ ko wax mooy ki yàlla yombalul ci moom mu aji taxaw bisu Arafat kooku moo dul woor ku mel ni nun tey amma ñi fa taxaw amma alhajj alladi waqafahu llahu lilwuqufi fi dalika almakan bu fekkee ki aji la yàlla wërsëgal ko mu taxaw ci bisu Arafat faqad zahaba jumhuru lulama rahimahum llahu taala ila annahu yustahabu lahu lfitre kooku la leen bëgg ci moom ki aji mooy bis boobu mu bañ a woor ndax dafa metti ci montagne bu kawe la dafa tàng mbooloo mi dafa bëri dafa bëri coono moo tax ñu teggil leen koor gi ndax ñu mën a jaamu yàlla mën a ño mën a ñaan kooku ñaan lañ ko ëppal importance loo tax jumhur ñu ne ki aji warul woor ki ajiwul mooy woor ñaareel bi mooy ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu wax inna naasan tamaaru indaha yowma arafa fi siyaami rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال بعضهم هو الصائم وقال بعضهم ليس بصائم كرك ca barab boobu yonent bi taxawoon ci naaj bu tàng ba naaj bi tàng na ba sahaaba yi dañoo jël benn sër jël ñeenti bant yonent baa ngi yéeg ci gëleemam sahaaba yi tiim ko ak sër boobu takk ñeenti côté yi di ko mbaaral ndax tàngaay bi mu tàngee sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi divisé wu ñaari xaaj ñi ne yonent bi fii mu taxaw daa woor ñii ne yonent bi woorul ñu daal di koy yónnee benn këll wala benn leket bu am meew yonent bi daal di naan mu leer mbooloo mi léegi kon ne ku taxaw arafaat du woor loolu moo tax ku taxaw arafa du woor ci ku aj ixwatal iman kon xéewal bu rëy mi ngi nii ñu war ko màng te mooy yàlla jéggal ñu sunu bàkkaar yi paase ak yi di ñëw kan moo amul bàkkaar kul ibnu aadama xataa wa xayrul xataaina tawabin yonent bi nee ñépp am bàkkaar ñépp fii ñuy wax nii kuy xalaat ne diw amul bàkkaar diw moomu laa wax dafa fees dalek bàkkaar ku seen xel xalaat rek kooku laay wax dafa fees benn kon lépp ne aadama la yonent bi wax bépp doomu aadama da ngaa fees ay bàkkaar mu ne wa xayrul xata'ina tawabin kii gën a baax ci def ati bàkkaar yooyu mooy kuy tuub say bàkkaar yal na yàlla yërëm Abdullah ibnu Mas'ud da doon wax sahaaba yi mu àndal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt Abdullah ibnu Mas'ud ki yenent bi moo fi ne ki yenent bi wax ne moo fi dàq jàng Qur'an ki yéegoon ci garabu tàndarma yi di ajji tàndarma sahaaba yi gis yeel yi di ko yee di ko ree mu ne leen yeel yi ngeen di gis day moo gën a dëgër ci yàlla ci montagne Uhud bi ngeen di seen kooku moo ne dafa am ay bàkkaar ba nit ñi buñ ko xamoon dinañ ko ko dinañ ko dóor ay xeer ba mu dee yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillahi waxda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله إن المسلم الصادق إنما همته الاتباع والامتثال توجيه الشريع الحاكم وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بقي julli dëgg li nekk yitteem mooy topp ak mooy ci lim ci fekk topp li yàlla wàcce ak yonentam li fi yonent bi bàyyi ak sahabatul kiram jullit dëgg bu am fulla am fayda gëm yàlla ak yonentam day mooy ci loolu moo tax yonent bi ci ndénkaane mu ne abdu alayha bin nawajis na ngeen ko matt ak seeni dëgëj dëgëj mooy dernier bëñ foofu ngay dugal sa diine nga matt waaye boo ko logee boo ngaa ngee mu dem ñàkk a topp moo ñu indi lii nu nekk tey ñàkk a topp ñàkk a topp yàlla ñàkk a topp yonent moo ñu indi lii nu nekkee julli dëgg day topp orientation yu ko sharia di joxe léeg-léeg nga dégg ku ne waaw ñii bu leen neexal ñu def lii parce que ñoom sharia la ñuy topp ñun nag topp ñu sharia jullit bu toppul sharia yow est-ce que am nga diine est-ce que jullit la ku toppul sharia doo diine sharia mooy l'islam sharia mooy li yàlla wàcce yonent bi jàngale ko loolu mooy sharia ki ne man toppuma sharia na wax ne man yéeféer la terminé loolu mooy islam naka la sharia di waxee lii la yow nga bëgg ne lii la munu ne afa tuminuna bi baadil kitab wa takfuruna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون القرآن سورة بقرة yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg a topp lenn ci téere bi bàyyi leneen lenn alquran 114 saar ngeen topp lenn bàyyi leneen xam ngeen lan mooy fayu ñi diviser téere bi en deux yàlla neen xam ngeen ñooñu lan mooy seen fay illa xizyun fil xayaati dunia dama leen di toroxal ci àdduna rek moo tax gis ngeen jullit yi ni ñu toroxe tey ci àdduna bi jullit yi rek la ñuy topp di rey ak yële passé la ñu tëbaskee Saddam Hussein ñu pendre ko rey ko ñëpp di seetaan en direct ñu jóge fa fan ngeen dégg ñu ne jàpp nañ Usaama Ben Laden rey nañ ko lakk nañ ko sànni nañ dóom bi ci biir géej barki démb ngeen gis lu ñu def Mouhamadou Khadafi pourtant bag boobu ngi ni ñu jàpp sax rey ñu ko parce que nasaraan la parce que du jullit amaa jullit rey leen rek ngi nii di moo ñu ngi toxi tere texee di ak torox jullit yi rek la ñuy rey ci adduna bi amaa ñu dul jullit kenn du leen rey pourtant bag boobu dañ ko jàpp génne ko filmé ko en direct ci bopp jamono ñëpp di gis ba léegi nii kenn rey ko xoolal Kadhafi xoolal Osama Ben Laden xoolal Hus- Saddam Hussein ak ñeneen ñu mel ni ñoom keroog benn imam lañ rey sud Afghanistan diggante Afghanistan Pakistan xam nga lu tax ñu rey dafa dañ dañ ne def nañ cent quarante vidéo xutba yu mu def jumaa rek kii kii terroriste la waxuñu gis nañ ko mu yor arme de def na cent xutba yu ñu dugal ci internet cent quarante xutba kii terroriste la rey ñu rey ko voilà lii moo toroxal jullit yi tey mooy li ñu nekkee ñàkk a topp sharia teqali ko suñu yaay Aïcha mu ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na mbir mii ku ci sos dara yàlla daf la koy delloo ci beneen riwaaya mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp ku def benn mbir mbir mi defoo ko ni ko yonent yàlla Muhammad indi dal la koy delloo bu yeboo ñu mat suñu diine suñu dëgg bu yeboo ñu am fulla ak fayda ci li ñuy def jaamuwuñu sharq jaamuwuñu garb jaamuwuñu cheikh jaamuwuñu wali jaamuwuñu muqaddam wa innama na'budu llah subhanahu wa taala wa naqtadi bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jaamu jaamuwuñu ma sàmba jaamuwuñu ma demba jaamuwuñu móodu jaamuwuñu paate jaamuwuñu penku jaamuwuñu sow yàlla la ñuy jaamu di ko royee ci muhammad yonent bi day taxaw arafat woor suba mu tabaski jeex na jeex na bu fekkee sa xar ni nga yor yàlla ak yonent bi moo tax boo ko réyee lëndi tooñ nga ko tooñ nga ko yonent bi keroog ba mu taxawee araf ca bés ba ca tegu la tabaskee ñaari kuy ne bii maa ngi koy tabaskee sama waa kër beneen bi ci des maa ngi koy yéene xeet bi képp ku am ixwaani fillah julli dëgg day topp quran ak sunna day topp sharia na julli yi xam ne seen jaamu yàlla du mën a wër lu dul ñu teg ko ci sharia ndax fa huwa almufassiru li sharia yonent bi moo doon firi sharia walmufassalu li ahkaamihi almuwaddihu bi amalihi wa aqwalihi yonent bi moo doon firi sharia moo ko doon leeral moo ko doon faram-fàcce ci ay waxam ak jëfam naka la yonent bi taxawee wax ba pare jógee ko fi sax ñun ñu bëgg a def leneen lu dul loolu bëgg a jàpp ne ñeneen lu ñu wax moo gën a dëgg waxu yonent yàlla muhammad ibadallah fa kullu ibadatin la ittibaa fiha wala liqtida yusqa saahibuha fi dunya wal axira bépp jaamu yàlla bu ñu jaamu yàlla royoo ko ci yonent bi jëlawoo ko ci Muhammad billahi lazi la ilaha illa huwa yow sax jaamu yàlla moom da ngeen di texee di yowmal qiyaamati xanaa jànguñu Qur'an yàlla mu ne képp ku topp loolu yonent yowmal qiyaam da ngay màtt sa ñaari loxo yowma ya'uddu zalimu ala yadayhi lan la ñuy wax yaa laytani yaa waylata ittabaatu maa rasuli sabila allahumma ya haadi ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه
الله أكبر الله أكبر أشهد